يقبل دمه أتى وختم برضوف كيف النبل دمه أتى وختم من رحمة بيتي جاني ودل أتى وختم بنو جنة كتمية بغ بلا ci barke Seydina Mouhamed ngeen am trois cent mille abonnés ci Tawfekh TV loolu nag maa ngi koy dagaan sama soppe yi mm-hmm. képp ku ma mus a bégal mm-hmm. képp ku mu sàmm bu mu tagg yonantu bi tagg Cheikh Tidiane sa xol bég nga bég kontaan ca mm-hmm. parce que am na émission yu may waaj ak Tawfekh Tivaouane TV salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim والصلاة والسلام على رسول الله ربي يسر لنا الإتمام كما يسرت لنا الابتداء مبوكي جلوني مبوكي تالبي مبوكي سيطان توفيق تي في تواون كم ني نكوي دفي بوب بليغي آه، دي انفيتي نيغا خامني تبارك الله اي ندانان لن آه، تي تي حضره بي بو ني اي ندانان تي حضره بي نك مو نيغا خامني نيغي دوندال حضره بي آه، تي سين اميسيون بيغا خامني موم مو يوبلو غامو تواون tay nak ginnaw bi passé buñu invité sambou tay nak ñongi wara séq waxtaan ak serigne moustapha mbou serigne moustapha mbou nak képp kuy jullit ak foo ti nekk xam nga ko ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye xam nga ko ci fédération bi nga xam ne moom la jiite muy fédération internationale al malikiya ñu naan ko FENAM waaye xam nga ko aussi tamit digganteem ak sëñ Abdou Aziz Al Amin danañ ci ñëw sëñ Moustapha ñu ngi lay nuyu. ok asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa Sénégal ak waa àdduna bi à travers Tawfekh TV. Mm-hmm. jël nuyoo bi teg ko ci sa loxo mm-hmm. yow suñu rakk suñu xarit. Mm-hmm. suñu wëllëre suñu soppe tabaarakallaahu di xaaji Kayre. ak ñi nga àndal liggéey sa caméraman yeeg ñi nga ko seqal ñëpp. ñu nuyu leen ziar leen bu baax a baax a baax a baax. nuyu waa àdduna bi yëpp nuyu jiital ci nuyoo bi xalifatul am li taifati Tidiane sëñ Babacar si Mouhamadul Mansour. ak njabootu Seydi El Hadji Malick yëpp xaasatan suñu sëriñ Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Al Amin ak njabootu Seydi El Hadji Malick ñu njëkkee mooy gàmm la ñuy waajal ku ne gàmm it wax fédération internationale al malikiya ñu naan ko FENAM Sëriñ Moustapha fédération internationale al malikiya fan la toll ci liggéey bu am solo bi mu daan def di ko waajal gàmm waaw kay Hadji Kayre comme hmm. ni nga ko waxee tabaarakallaahu fédération internationale malikiya commencé na hmm. foog naa bi ngay romb léegi ci hmm. suuf romb nga lu nekk am na tamit ay oto yu nekk ci yoon wi di ñëw ah ñi ay matt lañ yëpp ñi li nit ñi war a jëfandikoo ñu nekk ci bis bu nekk ñu war a jox deux mille personnes reer mille zéro sëñ Hadji Malick mille zéro sëñ Babacar ah, lu ñu am teg ca bu ñu amee ataaya teg ci bu ñu amee was teg ci bu ñu amee meew teg ci bu ñu amee sexew teg ci allahu akbar lii yëpp rek ngir bégal gani sayyiduna Muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam macha allah ndax fenam dafa am ñu nekk ci suuf di ko di ko di ko jàppale wala sëriñ Moustapha Mboup ak ñi mu àndal rek la. sëñ Babacar Sy nekk di ko jàppale. allahu akbar kon daal kenn ku koy jàppale la am mooy. Cheikh Seydi Aboubacar Sy moo nekk ci suuf fenam di ko jàppale. allahu akbar Seydi El Hadj Malick mi ñu defal liggéey bi. Ah. nekk ca kaw. Mhm. teg ñu loxo. loxo am na du ñàkk yu mel nii ñu ciy jàpp. Mhm. mais ñun benn sponsor leader la ñu am mooy xaaj Doro Gueye. Mm-hmm. yal na ko yàlla dolli jàmm ak barke ak sutura muy suñu xarit di suñu doomu ndey. Mm-hmm. à part moom vraiment ah bëri nañ ñu ciy taxaw parce que njaboot gi tabaarakallaahu ñu bokk fenam. Mm-hmm. slogan bi ñu am mooy liggéeyal sa bopp ci sa kër sëriñ. allahu akbar ah, bu ñu nee liggéeyal sa bopp ci sa kër ah loolu nag ku nekk li nga mën rek loolu ngay def. waaw fenam nan la dooree. fenam dañ ko doon taxawal mu nekkoon fans club bu ñu ma bëggoon taxawal. Mm. man ma bañ lool ci kër Seydil Hadj Malick radiyallahu taala fekk mbooloo mi bari nañ fii loolu sama bàyyi ni ma comme sëñ Abdou mooy si kilifa demal nga seeti ko mm-hmm. ma dem seeti Serigne Abdou ma ah, loolu de dafa zaayire mm-hmm. yow la bokk mm-hmm. kon def ko almalikiya ma ne ko ah, maam dina am dajale lekk dina am dajale xaalis te du ko lekk mu ma lew na la de ma ne ko dama bëgg nga jox ma ndigal bu ñu commencé te burdu mhm. may togg di jox nit ñi ak ziar mu siggi ni ma ku ci laal ajom dana faju allahu akbar waaw ah, loolu nag gars yi xam nañ ko nag waaw ah. ah, ndax mboolem njabootu fenam ku ci def mille francs ren mhm. bu déwénee di nga def dix mille ku deful dix mille daaw bu nee di nga def cent mille ci sa coobare bopp kenn du la ko laaj de. Hmm. parce que yaa koy def yëg ni waxi Serigne Abdou ji am na nga yokkal sa bopp. Hmm. allah euh, ñu gis tamit cër bi nga xam ni yàlla defal na la ko ci Casamance gàmm gu rëy nga xam ni yaa ngi ko fay amal chaque année lan moo may Serigne Moustapha Mboup loolu ca Casamance. loolu ku yaakaar ni man la. Hmm. Euh, cuune nga. te fii may waxee ak yow ñu bari dañ yaakaar ni man la. wax dañu nekk cuune. kan la kon. cheikh Seydou Aboubacar Sy la waaye cheikh Seydou Hadj Abdoul Aziz Al Amin la sëñ mm. Abdou. xam nga ni da ngay xam sa bopp. Mm-hmm. man attanu ma. micro mm-hmm. bii. Mm-hmm. bay attan mbooloo. mbooloo mi du sama mbooloo mbooloo Serigne Babacar Sy la. te li ma lay wax ñi ci dugal seen loxo yëpp seen loxo dina damm ci barke sëñ Babacar Sy. parce que du sama mbooloo man tekkiwu ma dara. Mhm. man munuma dara. Mhm. waaye mbooloo mi mbooloo Serigne Babacar Sy la. du Casamance rek de. Mm. mbooloo mi international la. waaw Casamance nag missionnaire la foofu ngir xadara bi ak diini ji. Mhm. toujours ma wax ko. foofu man nekk mu fa représentant xalif général de Tidiane. sama xel nekkul ci loolu. Mm-hmm. duma ko fa doon mm-hmm. xana top ci ginnaaw kako fa doon muy Serigne Samba Ndiaye allahu akbar ñaanal ko yalla wir mm-hmm. ak gudd fan ak sutura amin inshallah mak mo xamni serigne ne sëñ Babacar fi samp depuis 61 et mm. ba legi mu nek fa bu toge ak mom barki démb laa toog ak mom buy wax da nga nan Cheikh Seydi Aboubacar si mo toog ni di wax Serigne Samba Ndiaye allahu akbar koku mo fa nekkal hadra way ñu nit ñu ngi fay jëm jëm googu nak ñu bari dañoo fokk ni man la mm. ñi yaakaar ni xeyna mbolo la moo ñu ñor ñi yaakaar ni xeyni daraja moo ñu ñor Mhm. mais fekk ñom sen conscience mo erroné. Mhm. mais mbooloo que Serigne Babacar que la. waaye nag ndigalu sëñ Abdou Aziz Al Amine mm-hmm. moom lañ ko fa taxawalee tabaarakallaahu kon gàmm ga fa dem xam ne ay yambar lañ xale yooyu mën ñoo taxawal lii ñun xale yi waaye nag ci la jëm gàmm ga mucc na ayib dégg waaw waaw waaw ñu ngi jéem demaguma fa waaye dégg naa gàmm gàmm ga ñu ngi jéem ñu ngi jéem ah yàlla yàlla yàlla mottali amiin yaa rabbi amiin ñu ngi jëm ci gàmm nag euh, mm-hmm. en tant que nit ñi mm-hmm. Tiwaawan gàmm si naka la war a comporté woo buy ñëw ci dëkku Seydil Hadji wax naa ko léegi émission bi ma jeexal bi ngay dugg si. Mhm. dafa am lu ñu war di waxtaanee. Mhm. te dañ koy bàyyi léegi. Mhm. ci gàmmu yeeg suñu cérémonie diine yëpp. léegi suñu cérémonie diine yi dafa mel ni ay tànn bi rek sabar. parce que ñi ci dem. bu dee ci góor. ni ñuy solo bu ñuy dem sabar la ñuy solo bu dee ci jigéen mhm. ni ñuy solo bu ñuy dem mariage ak tànn bi rek sabar mhm. moom la ñuy solo te ala azimu laylan wiladati xisbatan mhm. isa lam yakun naxwa alxarami udulu la sayd alxaaji malik bu fekkee da nga ñëw Tiwaawan lu xaraam di ci sosoo mhm. wala mu la cay toppee wala ngay tax mu dal nit mhm. mais nga bàyyi ko bañu ñëw toog sa kër moo gën wallaahi wallaahi nañu am benn slogan bu bees mhm. ak challenge bu bees mooy bu dee jigéen ñu ni karawam du feeñ benn awram du feeñ daramam yaramam du feeñ nga nekk ci dëkk bi di jaamu yàlla di bale di togg di raxas di jox jaamu yàlla yi bu dee góor itam noonu boole ko yur sa kurus waxtu bañ ñoo raw bëri na kuy gàmmo si te gàmmo si ngay gàmmo si daa xaraam ndax bu fekkee da ngaa gàmmu si faat waxtu tisbaar mm. takkusaan timis gee mm. gàmmu gi xaram la ci yow lu waaye di def ba julli jot nga ne ko fa ñukk julli mm. bu wasifa jotee mbooloo yu dajaloo wasifa bu xadara jotee ñu dajaloo xadara jàng kaamil ñu dajaloo jàng kaamil def ay dog ñu def ay dog fenam mi ngay ñi fii may waxee ak yow nii bu amul un million salaatul fatiha ko manqué bariwul allahu akbar waaw waaw bu fekkee fi may waxee yow nii amuñu un million salaatul fatiha dajale di jox nit ñi rek déedéet dog yi tàmbali ak bis bu nekk ñu jang 41 yasin 41 waqi allahu bañ ko tambalé ak légui ëpp na 2 mois allahu akbar lool dañ koy njañ sé sëñ Abdou Aziz Alamine ngir gàttandoo ko gàmm dañ koy njañ sé sëñ Abdou Aziz xam nga luy njañ sé bo demé ci gàmm bi boo hmm. mayee say xarit day ñëw mayélé la moy njañ sé parce que man xamna naa Abdou Aziz Alamine fii hmm. bu daan jub ñaata million lay dégager hmm. ngir sarax yu ñuy def ngir ñaan yu ñuy def mhm. ngir nit ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm seen aajo yi faju mhm. moo tax ñun tam bañ tàmbalee ba tey mhm. ñaari weer ak lu jiitu wala ñetti weer lu jiitu ci la ñuy tàmbali kaamil yi yaasin yi waaqia yi ak salaatul fatiha yi ren bu ñu amagul un million salaatul fatiha li ñu manqué un million salaatul fatiha allahu akbar allahu akbar loolu nag la gi soxla léegi nag bu nit ñi ñëwee nag ñu soo ko dajaloo nag toog jox jaamu yàlla yi ñu barkeelu tabarakàllah ah, macha allah beneen bi ci des mooy dafa am phénomène boo xam ni bëri nañu koy euh, kaas euh, desee yaatal gi maanaam lu yaasu seede ci gàmm gi mhm. ñu mu mel ni daal euh, am na ci ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi yaatal gi gan yi des na ndax gan yi dañuy bëgg fu nu dal mais dañuy gis ni lañ leen koy joxee ci ñetti fanu gàmm gi dafay cher lan ngay wax ki nga xam ni moom la yàlla cërale mu war a ñëw euh, gan ñi war a ñëw moom mu dalal leen waa xam nga man nag sama philosophe dafa xaw wuuteeg bu nit ñi mhm. man du ma ko tuddee ñàkk yaatal mhm. barke Seydil Hadji Malick laa <laughs> lu tax. Ah. Euh, jamono metti na. Hmm. bëri na ko luyee këram. Hmm. lolu mu luyee kër gi ci lay teral gan hmm. te boo gor munu ñaan munu laaj. boo amee sa na lay jaral nga génn mbaar ci buntu kër gi. ko jaya gan gu nga teral ko. kon nyom ñi ñëw ñoo yóbbuwaat. xëy amna am na ni. dan koy def ngir alal. waye man ñima nyubari, ci xam ñu bari. dañ koy def dem jënd nak Mm-hmm. jënd xar mm-hmm. jënd ravitaillement mm-hmm. indi teeralewaat ko gani sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax du ma ko tuddee xatal am na ñoo xam ne nag foo gis uh, yu mel ni am na ñoo xam ne moom dañ ciy jaxasoo seen intérêt seen poche moo leen ñor loolu mooy mbir yi tabaarkalla macha allah macha allah euh, xam naa bala ñuy jeexal rek mooy gis nga jumaa ji le quatorze insha allahu taala ci la jël caabi ji jox ko Serigne Babacar Sy Mansour en tant que ci ci kër gi di kilifa yi euh, naka nga gisee taar taar bi nga xam ne moom moo am ci jumaa ji attaar bi defuloon gaawal gaaw laal ca dara allahu akbar jumaa ji waaw ku ci defuloon mhm. fii ma toog di wax ak yow di boo jàkkaarloog man jël sa wiif même bu dee cinq cent da nga ko ci mhm. Haaji Malick bu participé wul ci jumaa ji mhm. bu julli jotee boo ci duggee gàcce war na laa rey allahu akbar taar bi nag ak ak daraja ji barke bi ku ëpp allahu akbar te sëñ Babacar Sy Mansour ku jar moytu la ku jar moytu la ku jar ñaanal yàgg fi la jumaa ji mm. ay baayam jéem ci ba të mm-hmm. ay magam ñëpp jéem ci ba të mm-hmm. mu ñëw teg ko loxo mu sotti allahu akbar ku yaakar ni na neen la mhm. yow wo kon ñi ngi ñaan yalla na jot ciabi ci jàmm mhm. ubbi ko ci jàmm ñun ñepp ñu andando ko mom ci jàmm mhm. mu julli ci nak at yu bari ci barki Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu macha allah tey la bourde bi di commencer tay première bourde euh, fenam tay lay commencer yi mi def wala moom damay day xaar rom nga ci suuf ñun tambal nañ yàgg allahu akbar ah tambal nañ de inshallah kon tay ku ñew zawiya seigne babakar ak zawiya seigne hadji dina fekk fenam di nga len gis jéem rek waaye taxul ñu dara dañuy jéem rek mhm. kër gi moom da ngay jéem rek macha allah boo jéemee rek yàlla dimbali la macha allah dañuy jéem rek ñu ngi jéem daal mhm. ay taalibi lañ ci kër gi mhm. li nu am yëpp xadara Seydil Haaji Malick moo nu ko defal comme xadara bi moo ñu defal lépp nag dafay jaadu ñun tam ñu def récompense récompense bi nag mooy lu ñu am ñun ak suñuy mbokki taalibe lu nu am ñu ak suñuy soppe lu nu am ñu ak suñuy xarit lu nu am ñun ak suñuy am di jàmm ñu dajale ko nag ñëw teral gani Seydina Muhammad yi barkeeloo ko ci bis sox Seydil Haaji macha allah euh, ñu gis Serigne Moustapha ci leneen fan yi nag mooy méridional tour mhm. xam naa danañ ci gën a yaatal mais dañ ciy laal une minute rek mhm. muy agent de voyage boo xam ne Serigne Moustapha moom moo ko euh, créé mhm. ngir nit ñi gën a yombal seen euh, ziyaara ak seen aji Makka mën nga cee waxal une minute rek ma wax la ci histoire méridional li ko waral mooy frustration moo tax ñu créé ko dañu dem Makka ñaari at man ak kilifa boo xam ni tabaarakallaahu ku baax comme bëggul ñu tudd turam xool Mm-hmm. frustration yi nit ñi am ci aj gi mm-hmm. ñenn ñi du ñëpp de mm-hmm. mais yenn agence yi liñ lay wax boo demee ak la nga fay fekk comme guddi ak bëccëg dëgg la dëgg la ñu waxtaan nag ci suñ biir ni il faut ñu créer agence boo xam ni dañ koy def agence su jaamu yàlla du pour alal allahu akbar yombal nit ñi seen umra ak seen ajma ka bo agge parce que dem ba màkka di xulo te yàlla waxoon fala rafasa wala fusuxa wala jidala fil hajj waaw legi ki la yóbbu mo lay indi rafasa indi la fusux indi la jidala lépp ci sa bir aj allahu akbar loolu moo tax ñu créé méridional tour mm-hmm. suñu première umra incha allah am na gàmmuwaat bi ak le 15 octobre incha allah mooy départ bi le 25 octobre mooy retour bi fii Sénégal aj gi tamit ren incha allah dinañ ko organiser mboolem ku bëgg a dem màkk rek boo ñu contacter mm-hmm. ci 77 169 58 58 di nga di nga di nga di nga di nga di nga jëflanteeg ñun mm-hmm. incha allahu taala ci méridional tour kon ñu ngi ciy woo ñëpp tabaarakallaahu di ñaan yàlla defal ñu ci sax ak ndam dégg nañ liggéey bi nga ci def am na yeneen yoo ci war a def incha allah yu gën a jot a rafet macha allah incha allah taala ba <laughs> jërëjëf am mujj bi ci émission bi rek mhm. incha allah bu ko defee ju tëj mhm. lan ngay dénk taalibe ak ñi nga xam ne dañoo fas yéene ñëw ñoom wax naa ko sànq ci émission bi doon def mhm. moytu gis suñ bopp gis nga ñun li wax ci ñun yëpp duñ ci dara xadra Seydil Hadj Malick te xadra bi dafa yomb nit ne fi gaaw a gis boppam fëgg sa te ñun duñ ci dara. déedéet borom xadara bi mën na boppam. Mm-hmm. surtout ñun taalibe yu ndaw yi. Mm-hmm. koo ci gis ba ngay sereti nit ñi. Mm-hmm. di wane ni man sëriñ laa. ñun ñëpp ay foo lañ. fii kër Seydil Hadji Malick gii. ñi sant si ñooy sëriñ ñun ay foo lañ. allahu akbar ah ñun de ñun mbuubeen de nangu nañ. ni ñoom ñooy suñuy sang. ñun seeni jaam lañu. ñun mbuubeen moom nangu nañ. kon li may dénkaane suma mbokku taalibe yi. mooy ñu tabaarakallahu bàyyi suñu xel. gën a góorgóorlu. gën a teg suñu tànk fu baax di sagal nag suñuy sëriñ di sagoo suñuy sëriñ nañuy sagal suñuy sëriñ sagoo sëriñ bi baax na waaye di ko sagal moo ëpp doole mhm. li nga wax nag sànq wax naa ni accident yu bari ci réew mi mhm. du chauffeur yi rek mhm. chauffeur am nañ ci wàll Euh, takk der yi am nañ ci wàll mhm. tali bi am na ci wàll mhm. client yi am na ci wàll mhm. yoon wi am na ci wàll kenn ku nekk nag li nga ci am comme wàll nan ko téye def ca la nga war a def yàlla musal ñu gàmmu gi nekk zéro accident jaar fam daan jaar ndax barke gàmmu gi borom gàmmu gi ëpp na nit ñëw ba ñibbi te dara dal kon yàlla na ko yàlla def ci barke sax Seydi Hadji Malick barke Seydi Babacar Sy amiin jërëjëf sëñ tabaarkalla macha allah solo bi muy taxaw ci xadara bi di ko taxaw fépp nag ñoo ko bokk euh, rawatina nag fédération internationale al malikiya ñoo ñu ngi kontaan bu baax di gis liggéey bi ñoo ko bokk yal na bokk am yeneen jotaay incha mhm. allah amul benn problème incha allah jërëjëf